مضارعها جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يهدف ما فيها عمل وبعض ما يهدف شغله هدف dafa waxoon ne jumla haal buy mudaari ha muy saxal te nga xam ne motaare ma amut xat mm-hmm. duy dalay waaw mm-hmm. ni ki wala tam tastaktiru mm-hmm. nga man gis naa jumla boo xam ne comme bi wax la dafa dalay waaw mooy loolu boo ko gisee da ngay nattale mubtada ne moo tax waaw la jumla fi'li motaare ma mi da xabari mubtada mi dana jumla mubtada mu nekk barabu na sax ñu ne xaal wasaata waawin jumla bay borom waaw wasaata waawin na nga def jumla bay borom waaw ndax in wi na nga nattale baadaha ci gannaaw waaw gi mubtadaan mubtada in halan na te na nga def al mudaari'a mudaari'a mi musnadan muy lu ñu wét mubtada jumla haaliya buy mudaari'un musbatun haarin min qat nga fekk mu dalee ci waaw hmm. da ngay nattale tada hmm. mu dox ci diggante waaw ak mudaari'u mi hmm. mudaari'u mi de xabari mubtada moomale jumla mubtada mi nga nattale mooy nekk baram nattal bi xaal ni ki yow mu ne xumtu jóg naa waa sukku te mbiroom pes xay na yi ñaari bëtam asukku mooy mudaari'u mi xam nga mudaari'u musbat la xamut xat jumla bi ma war a nekkee barabu nasab de xaal te mu ngi dalee ci waaw da ngaa wa ana asukk ana de mubtada jumla asukk de xabar bi jumla ana googu nag ma nekkee barabu nasab de falamma xasiitu adafirahum najawtu wa arhanuhum malika falamma xasiitu ba ma ragale adafirahum najawtu mucc naa mm. wa arhamuhum te mbir hum danaa leen tayle malikan mm. malik mm. gis nga jumla arhamu da war nekkee barabu nasab de haal ci najawtu arhamu mudari'un musbatun arin min qat te xam nga affaire baa ngi dalee ci waaw da ngay nettale mubtada nga xam ne wa ana arhamuhum moom su ko de mubtada arhanu de xabaram jumla ana arhanuhum nekk barab mubtada waa wasaata waa wi nanga nattale ci jumla bay borom waaw ndax in wi nanga nattale mubtada mubtada maa daha ci gannaaw waaw ijaalan natta nanga def al mudaari ha mudaari ha jumla xaaliya buy mudaari am musbat te amul xat mu fekk mu dalay ci waaw da ngay nattale mubtada ci diggante waaw gi ak mudaari am su ko dee mudaari am te xabar mubtada moomu jumla mubtada mi nekk barab mubtada wa jumlatul xaali jumla xaal siwaa ma budul bi nga xam ne xuddima jiitaleef na ko murtabitatun aji takkoo la mu bi waawin ci waaw jumla haaliya da fekk la koy booleeg borom haal da waaw gu nekk ci bopp jumla mooy waawul haali la in akkalahu dibu wa nahnu osbatun jumlaam nahnu osbatun haal la li takkalante jumla beeg borom haal ji mooy waaw gi ci bopp jumla abi mutmarin wala ci damir wala boog muy damir tur bi nga xam ne xuddima jiita lef na ko bi waawin aji nekk ci waaw jumla xaaliya su moyee bi wéy layra bi diggante mu borom xaal man nay doon waaw ko nekk ca bopp jumla aw mutmarin wala ci damir joo xam ne yar joxo dana mu dellu ilaa fil xaali Mm-hmm. wala boog mooy damir bu nekk ca bopp ci jumla ba dellu mm-hmm. ca borom xaal ja ni mm-hmm. ngi ihbitoo minha jamian baadukum li baadin adu jumla baadukum li baadin adu woon xaal la da nga xam ne moo takkalante jumla bi ak borom xaal ji li damir dellu ci aw ihbitoo ak jaaukum xasirat suduruhum jumla xasirat suduruhum eh, day nekk barabu nasab bi aw jaawo mm-hmm. di dëkkalaante jumla bi ak borom xaal ji mm-hmm. mooy damir boobu mm-hmm. defu dellu ci waaw aw bihima ci waaw ak damir léeg fekk jumla xaal la koy boole borom xaal te ñaari yëpp waaw ca bopp jumla ba ak bu nekk ci biir jumla ba dellu ci borom xaal mooy li ñuy jàng ci alquran mu ne alladina qalu li ixwanihim waqaatu jumla qaadu bi day nekk barabu nasab de xaal ci alladina wala waaw xaalu waaw bi ci bopp jumla bi ak waawul jamaa bi bi dadamir ñaari yooyu ñoo takkalan ci jumla bi ak li muy xaal wa jumlatul xaali jumlaab xaal si waaw maa bi nga xam nekk na ci waaw aw bi mudmarin wala ci damir aw bihi ma walla ci waawam dem wal xaalu xaal qad yuhdafu des na xasaf maa li nga xam ne amira la géy na mu fi haa ci xaal xaal léeg-léeg nga fekk ni xasaf la ko nasaf moom rek moo fi nekk jawaasan ci dagan li dalil ngir tegtal xaali yi ndax du loolu la bay ko jug melo ka qawlika liman raja liman qadima min safarin ka qawlika ka qawlika rafidan li qafili safarin waa ji dafay tukki dafay tukki nanaan ko rafidan rafidan mooy tusafiru rafidan tusafiru mooy hamil bi dan ko atam mu des rafidan kii haal ji li ko def mooy xarina biñ toll melokaan biñ toll moo wane xaamil bi di saafilu ak loo ci teg wam aw aw ma aw ma xaaliyin li dalilin xaali aw ak wala majuran majuran nga wax ko li xaadimin min hajjin waa ji fa bàyyee ko ci haj mag naan ko majuran mooy xadimta majuran xaal biñ toll moo wane xaamilul xaali biñ toll aw maqaalin wala dalil maqaalin ndax loolu ci tegu. waaw ka xawli ka ni ki. non balaa qaadirin. balaa qaadirin. Hmm. ala najmaa hidaama. Hmm. dàqala bu ñuy tontu. Hmm. bu ko defee balaa najmaa qaadirin. ñaata najmaa mi xaamilul xaali. mu des ba qaadirin kii xaal. ndax xamee nañ ko ci wax bi jiitu woon. ak bay ak ba tey fa in xiftum hmm. fa rijalan aw rukkubaana hmm. fa in xiftum fa sallu rijalan hmm. aw rukkubaanan sallu muy amilil haali day ko waasa li ko def mooy xamee nañ ko ci hafidu ala salawaat kon dalil maqaali bi lañ dëgg yaa sam amilil haali walhaalu haal qad yuhdaku des naa sax hmm. maa li nga xam ne amela la génn mu fi aji haal hmm. wa baadu maa leen ne laa la yuhdaku des na ko haata sigro hoo tuddam bodela teres na ko hmm. léeg-léeg fekk fu ñu haata fen haamilul haali sax te fekk boo ko tuddoon yàq baat lañ koy jàppe dégg nga xiyaasan ci lu mel ni darbuka zaydan qaiman danga andi mubtada xaal topp ko juwa jumanul doon xabaram il faut ñu asaf xabari mubtada mi te xabari mubtada moomu war di asaf mooy amilul xaali jàngoon nañu ko ci buntu libtida ak loo ci teg saydun abuka ak saydun bi dafa topp jumla murakkaba min maarifatayni da ko feddali amilan day war ñu asaf ko comme nañ ko jànge woon dem wa in tuakib jumlatan wa mutmaru amiluha walaftuha yu axaru aloo ci teg wama ak xaal joo xam ne sukkira tuddees na ko li taw bi ngir yedde aqaiman da ngaa def dëkku taxaw waqat xaada naat ñëpp ngi toog day taxaw atabqa qaiman tabqa mooy amilul xaali dañ ko asaf bàyyi fi qaiman lu ci tegu awli bayaani awli bayaani tadrijin wala ngir bilal daraja bi saydin ci dolli aw naqsin wala muy xaal joo xam ne dañ ko indi li bayaan daraja bi sayin ma benn muy tadriju siyaada wala muy tadriju naqsi nangam jëm kaw wala nangam jëm suuf dirhamun fasaidan ñu xamee ci affaire bi mu dalee ci tuuti dërëm ba lu ko wala dirhamun fasafilan nga xamee ni dërëm baalu ko suufe hmm. affaire semaine ci bëri hmm. tasaddaq bi dirhamin fa hmm. saidan fekk fa ala saidan la wala fa safilan fekk fa safala safilan la li tegu aw aw samaahan fi xayri daalik wala boog muy luñ dégg ci waxe arab ni ki hani an lakal xayru arab da koy waxee ci ndokkeel fekk na sabata hani an lakal xayru sabata moom la al xayru di fa'ilam li xasab ko xëy na mooy xamirul yaan hani an lakal xayru li tegu wala tolo bi waaw moo wal xaalu qad yo def ko des Eh, ma li nga xam ne amila la génn mu fi haa mm-hmm. ci haal wa baadu ma lenn daal yow te bu mm-hmm. dee na ko asam mm-hmm. fikru hootu dam hudila tereel na ko